beneen nawaafil lay joxe ngénte yow di ko def aka yomb te aka mën a faj aajo hmm. waaw aka yomb man aka yomb aka mën a faj aajo ñaari rakkal maanaam ni yëf yi dëgëree nii yëf yi dina dootul dëgërati li ma lay wax kay defar rek maa la may une semaine waa une yàlla moom képp kuy werante ay mbiram rek xamoo ko hmm, hmm. lépp lu ñu la wax ni alxuraan man man na ko nga toog fële weddi ko naan bi daal dangay ngay wax ni yàlla aayul mhm. yàlla moom ay mbiram moom weesu na foofu te alxuraan bàyyiwul dara dara aayu ci léegi da ngay julli ñaari rakk hmm. ñaari rakk waaw bu njëkk bi mhm. nga tari fatiha benn yoon mhm. fatiha benn yoon suratul xadr inna anzalnaahu fii laylatul xadr benn yoon xadr benn yoon def astaxfirullah astaxfirullah astaxfirullah fukki yoon ak juróom rakka euh, bu njëkk bi fatiha waaw benn yoon benn yoon ina anzalnaahu fii la dul xadir benn yoon benn yoon mhm. astaghfirullah waaw astaghfirullah astaghfirullah fukki yoon ak juróom fukki yoon ak juróom mooy quinze mooy quinze waaw nga nga rukkoo mhm. wax ko fukki yoon mhm. nga taxaw wax astaghfirullah fukki yoon nga sujjóot wax astaghfirullah fukki yoon nga toog wax astaxfirullah fukki yoon su jootaat wax astaxfirullah fukki yoon jóg taxaw jàngaat faatiha benn yoon mhm. inna anzalnaahu benn yoon mhm. def astaxfirullah fukki yoon ak juróom boo rukooxee def ko astaxfirullah fukki yoon taxaw ci rukoox bi def astaxfirullah fukki yoon su jóot def astaxfirullah fukki yoon jóg ci sujjóot bi toog wax wax astaxfirullah fukki yoon. Mhm. sujjóotaat wax astaxfirullah fukki yoon. daal di wax boo toogee pour taaya wax astaxfirullah fukki yoon daal di mu nekk mu nekk ñaari rakka. Mhm. ñaari rakka. boo sëlmalee. ñaar def benn faatiha ngay jàng faatiha. astaxfirullah nga def ko fukki yoon. Mhm. jàng salaatu ala nabi fukki yoon. def nag yaa xayu yaa xayuum bi rahmatika astaxiis nga def ko cent un fois. yaa xayu yaa xayuum bi rahmatika astaxiis. Mhm. bi rahmatika. astaxiis astaxiis waaw. boo ko waxee. Mhm. fukki yoon maanaam téeméeri yoon ak benn mooy cent un fois. Mhm. bu fekkee mënoo ko nga def laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin 41 fois. boo paree mboolem aajo boo am ñaan ko sunu borom mu may la te nag julli gii képp koo xam ne yaa ngi koy saxal dina génn ci yow téeméeri jàngoro ak benn hmm. ndax leer